Cheikh Mouhamadul Fallilo mooy fal di fole tey jii ku ko mu fal la ngay fale ki mooy saahibul kumala ahlul fadailu maalam yaawe dun ko dem fa moom xam ne kii mooy saahibul kumala euh, di fas yéene waxtaan ak yéen tey ci li nga xamante ne bii moom la ñu jublu muy ngan euh, euh, gi nga xamante ne bii moom la fi sëriñ Abou Baraka bëgg a def incha allah ci semaine bi xam naa ngan gi la 16 lañ koy def incha allah taala euh, ñu xam naa dañuy euh, gàttal kàddu yi rek jël yi jox ko ki nga xamante ni mooy suñu kilifa ndax bu xasee teew rek daanaka ñun moom amoon nañu ci kàddu muy sëriñ Cheikh euh, Matelay ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool suñu kanam kàddu yi nag kàddu yi la soo xam ne dañoo war am gan sunu waajur di Cheikh Abou Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal ah war a teew fii ci Argentine di seet si mbokk taalibe yëpp di sunu sëñ Tuubaa ci ñun di Serigne Fallou war a ñëw ñuy soññ mbokk taalibe yëpp di ñaan képp koo xam daal teew nga fa. gan gi nag ngi ci woo bépp wëllëre bépp jullit bépp taalibe waaw yeneen xamal daal su ñun gan man maay gan képp ku ñu teew nag ñun rek jàppale kon léppam nun la war kon ñu ngi ciy mbokk taalibe mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo fi bokk nag sëriñ Dame Dieng ak sëriñ Abdou Dieng ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Touba Assane yi yëpp te numéro bi dañu am foofu kii tamit nga xam ne mooy mooy jëwriñ ni fédération daayira sëriñ Touba yi kon ñu ngi ciy woo mbokki taalibe yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf sëñ Cheikh kàddu yu rafet na te am na solo trop Euh, kon noonu ñu ko déggee rek euh, euh, xam naa ñun dañuy wax ci turu suñu jëwriñ sëriñ Fallou Lam mi nga xamante ni moo jiite daayir Serigne Fallou bi ñuy yëgal ñëpp rek ñëw ak Serigne Serigne gi di ñaan ñëpp teew ci rek ndax Serigne Fallou fi ñëw te ñun wax dëgg yàlla amuñu bis bu gën a rëy bis bi nga xamante ni bi moo la fi Serigne di ñëw kon nag ñu woo képp koo xamante ne bi maanaam soppe yi Serigne nga képp ko xamante ne taalibe Serigne nga ak képp kuy murit ci dëkk bi rek ñu ngi lay woo di la yëgal bis bi xam naa nag euh, bala ñoo sori dañuy jox euh, jëwriñ Serigne Fallou Lam moom mu am kàddu yi ci tàbbal soññ talibé yi. kàddoom la ñuy wax dañ leen di yëgal yéen bokk talibé yi bokk jullit yi soppee Serigne Fallou yaakaar tey ëllëg Cheikh Abou Mbacke moom Cheikh Abou Fadel Mbacke ak seen fan la juróom-benn ñu weer seen dara ñu koy yëgal mboolem ku tudd seen fan suñu waajur dañoo jaayante seen fan wala dem seen fan tudd seen fan sopp seen fan tudd seen fan ñu leen ciy woo kenn ku ne fédération bi fédération bi waaye ñun benn daay kuréel yëpp ñu ngi leen di woo bis bi amuñu di lim bis bi ñu ngi ci woo ñëpp ñaan ci dara salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki murit yi ñoo ngi leen di siyaare bu baax tey jiital ci nuyoo beeg siyaar bi Serigne Mountakha mun Serigne Bassirou di ñaan suñu borom mu yàgg loolu te ànd ak naka noonu Serigne Cheikh Jëmb Fall di ñaanal Serigne di Muxtaar Mbàkke suñu borom yokki leeram te taaf ñu ci barkeem di siyaare mboolem kilifa yi nga xam ne rek ñoom lan taxawal jataay bi te ñu gën cee nekk tuut tànk nekk seen ab dongo li waral kàddu yi mooy suñu sangu bu baax di nga xam ne ñu ngi koy séenu muy Serigne Abo Mbàkke moom Cheikh Modou Fadal Mbacke ñuy seen mbokkum taalibe rek di Assane Baye nekk ci liggéey bu maam Cheikh Fall bi nekk fii ci Touba Argentine di ci woo mbooleem képp kuy Baye rek te yaakaar Cheikh Ibra te ñu xam ne day Cheikh Mouhamed Moustapha Fall jàmbaar ja moo toog xalifa Cheikh Ibra ba noppi toog xalifa Serigne Fallou loolu nag li mu dafa bari day wax ju rëy joo xam ne xëy na jot gi mayuñu ñu leeral ko waaye ñii mag te dégg bu ma waxee ne Cheikh Mouhamed Moussa Fall moo toog xalifa Cheikh Ibra toog xalifa sëñ Fallou danañ xam la ma wax bu baax a baax kon nag ñi ngi sant bu baax a baax a baax a baax fi nga xam ne mooy cosaanam ba ki nga xam ne moo waral lépp muy Serigne Malick Niang ñu gën koo xam ci Serigne Mafa Niang nga xam ne day lëm liggéeyoon Cheikh lëm liggéeyaloon Cheikh Ibra lépp barkeel na kon nag ñu ngi siyaar baax di woo mbokki Baye yëpp ñu teeru Serigne Abo Mbacke Fallilou def ci lu ñu mën ak lu ñu mënut di woo mbokki Argentine yëpp ci ndigalal Serigne fallu ñu ngi woo ñëpp ci ndigalal Serigne Fallou ak ndigalal Serigne Daabo kon ñu ngi jéggulu ñëpp di ziar ñëpp dañuy waxe xol bu sedd suñu xol fees ñu ngi ziar ñëpp di tuubal ñëpp di balu ñëpp ak jërë ngeen jëf Cheikh Mouhamadoul Fallilo mooy fal di folle tey ji ko neex mu fal la ngay fale ki mooy saahibul kumala ahlul fadailu maalam yawi dun ku dem fa moom xam ni ki mooy saahibul kumala